asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala yi gii lan doon naanal sëriñ Touba Mbàkke Xaadim ab église boo xamante ni nasaraan bee ko moomoon daan ci jaamu beneen buur bu yàlla sunu boroom njabootu sëriñ Touba dikk ni sëriñ Touba mi fi wutu rasulullahi sallallahu alayhi wa fi yonent bi moom kat dañ ko ko naalal lii mu jot ko moomal ko lislaam nu yàlla dimbale nu ni ñaari weer ci lan fa séenee liggéey liggéey bu sàll bi pour moomale ko sëriñ Touba taalibe bi yëpp jaayu ñu fexe ba am kër gi jëndal ko sëriñ Touba ci lu àndut ak bor àndut ak leb àndut ak intérêt di ñàkki taalibe yi kese ñu dajale trois cent cinquante mille dollars tombeek lii nga xam ne mooy deux cent dix millions CFA Senegal Sénégal ñu nan ko momalal serigne Touba ba tey jot nan caabi ji fay ko kaas suñu jëriñ serigne Wacké Mbaye ngi ni and ak serigne talle Sey mi nga xamit ni talib serigne Mam Mor la yoron commission keur serigne Touba jitu ci ak soxna Penda Fall moom serigne Basirou ak talib mam Thierno Ibra Faty mi nga xamit ni moy serigne Wacké Mbaye porte parole bi di Papa Gora taalibe Cheikh Amadou Fadal kër gaa ngi ni dajji nañ bunti l'islam mom ko di ndamal Touba di ndamal bépp jullit di ndamal képp koo xamante ni rek sa xol dana yëg dara lu dul mbaax kër sëriñ Touba ngi nii ñu moom ko ñu ngi nii lii lépp lislaam dajji na buntu yéefari dugal fi sëriñ Touba wane ko ci njàngalem xaadimul Moustapha ci li mu wax ni dama bari njariñ te am ma dara lu dul lor mooy Cheikhna Ahmadul Xadim xaadim rasul kër gaa ngi nii ñaqu taalibe yi yalwaanuñ ko saraxuwuñ ko murit yi sëriñ Tuubaa yi ñoo ko dajale jóge ku tedd ci sëriñ Tuubaa xaadimul Mustafa liggéey baa ngi nii murit yi lii mooy ndamal lislaam lii mooy ndamal Seexul Xaadim ci leen di defal film bi nag mooy seen mbokkum taalibe Papa Gora Samb taalibe Cheikh Madal Fadal di porte-parole Touba Cincinnati ànd ak mboole mbokki taalibe yi di wane lii mooy saal ba ca kaw gis ngeen liggéey bi waaye boo egsee ci biir am na lii nga xamante ni mooy liggéey bu am solo ci bëri bu sëñ bi ñëwoon ànd ak parkin gis ngeen ko fii salle de réception la fii mooy basement bu jëm ca jàkk ja waaye buñ duggee fii nii nag di bureau boo xam ni sëriñ Tuubaa lañ ko wutal bu fi kilifa gi ñëwee di sëñ bi kër gaa ngi nii bureau baa ngi nii liggéey baa ngi nii boo fi jógee Amat na benen bu nekkaat fee fële ngay yegge dem ci escape bi ci kaw liggéey Serigne Touba ngi ni liggéey bu lislaam ngi ni liggéey bu sall ngi ni mbokk julit mbokk talibé gis ngeen li ñu liggéeyal Serigne Touba fi di wat benen bureau gis ngeen ni lampe yi gis ngeen ni bureau bi ñu war ko defal lepp liggéey bu Serigne Mamoon gor yalla nga xamit ni moy bàyyam di Serigne Mourtala di Serigne Touba di sama tur liggéey liggéey bu réy bi ci lislaam sëriñ bi xam ni dafa fonk suñu doom yi ñu yar leen ci diine yar leen ci lislaam yar leen ci njàngaleem sëriñ Touba ñu ni kon lii kat nañ ko def lii ba mën ci am ab école boo xam ne danañ ci doot nu loyati saal doot nu toogati fenn ñu ne heure bi jot na ndax sëñ Touba kat moom moom duniyaa bi moom moom àdduna ak alaxira ndax yàllaa ko ko faye kon liggéey baa ngi nii ki leen ko doon defal nag seen mbokk taalibe war sàmm taal bi Cheikh Ahmadal Fadal fii ci Cincinnati kon kër gaa ngi nii liggéey baa ngi